suñu père Moussa. c'est bon c'est bon baax na jërëjëf ah, waay. Ah. Mmh. asalaamaaleykum mbooloo bi. Mmh. ñu ngi nuyu jotaay bi yëpp présence bi yëpp bàyyi ñu kenn. tàmbalee nuyu bi rek Gaston Production. Mmh. mooy la kon Gaston Production lu mu def rek da ci dañ ci identifier làmb. c'est normal daf ci yàgg. man mii su ko dee wax ci Gaston man ay témoins éclaire dañoo séq maag moom lu bari ci làmb ndeysaan sama combat yi ëpp ci samay combat jaar ci jaar ci loxoom depuis njàmbur ba ba jamono ji ñu toll nii aujourd'hui man contenté bi ma am mooy gis nga ne tey jii ñu ngi ci benn restaurant boo xamante ne làmb lañ ko inauguré ça veut dire que loolu day wane rek day sëkk rek pour wane Gaston hmm. dafay identifié ci làmb fekk c'est normal nag c'est le promoteur numéro un wax ko moom la ñàkk wax moom waaye ñu ñëpp baaxee na ñëpp dañuy baax mm-hmm. et eh, di nuyu assistance Abdoulaye Ndiaye yow Gaston production laa fay mm-hmm. sama jarbaat makan absenté wul waaye ko donc ñu ngi nuyu ñu fi teew mm-hmm. bëri yi ah, les promoteurs te lamb moo ñëwaat fii donc damay aussi profité ci occasion bi nuyu sama ñaari doom yi macha allah père Serigne Ndiaye numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène junior eh, ku ne xam na ne kat Serigne Ndiaye numéro 2 bi sama keppaar la nekk maa koy tàggat. Mhm. mu grand champion. waaye gënalewu ko nag ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène Junior nekk fii ñoom ñëpp suñu ay doom lañu mën naa far nag bëgg Serigne Ndiaye daan. Mhm. et eh, ni ma bëgg Serigne Ndiaye daan nag noonu la jiile mais toog bëggee mbërëm mi daan sàmm bëggee ko ñu mu dendal bëgg mu daan. <laughs> mais nag ñun ay sportif lañu. quel que soit le résultat amul importance bi ñun ñun la marche la bonne lit mooy mu am suñu soxla làmb dox ñaari mbër yi dañ doon toog di galérer bëri doon leen jafe waaye benn bër baa ngi xool benn bër bi ci béjjën mun ta ñàkk beneen bër bi bi xool feneen lii tey jii am nañ chance bu bëri ci saison bi mën na am tey jii bu doon Gaston Production kenn xamul mën na ñëw toog bañ a bëri saison bi ndax ku nekk xam na ne combat bi sax Mamour maa ngi dégg mu ne ci moom la jaar taxaw d'accord naa de ndax télévision ngay waaye ah ma dafa mel ni ci mën la jaarde dafa mel ni maa toog yuuxu waaw ëmma tontu hmm. Serigne jaay tontu bi am indi boobu taxawal na combat bi waaye tam liggéey bi nga ci liggéey nga defarlu invité mbër mu ñëw xalaatam dem yooyu bi dëkk ci mu ñëw wax xalaatam yaakaar naa teguñ bu jël siwul combat bi taxaw demande sociale ñaari pono yi ñu leen seetee ñaari bonne chance ngeen am wér-gu-yaram am santé jóge seen kër bu leen dara jot ba dugg ci làmb ji kii daan daan kii daanu daanu làmb des di làmb salaamaaleykum waaye père bala ñu laa bàyyi xam na ne ñëpp sa doom nga faral mais techniquement ñaari xale yi waa technique am solo techniquement parlant man euh, dama waxtaan ak benn grand champion de lutte mhm. mu ne ma non père combat bu neex moo jaar ci diggante seen Ndiaye moo dë ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Junior mhm. da yaakaar ne Serigne Ndiaye moo ko mën mu ne ko man du ma ngeen mën mukk naan moo Mm-hmm. waaye tous les heures qu'il faut dinaa ko jox sama borom mu dem bëri ji. Mm-hmm. moom itamit noonu kazaalika. Mm-hmm. Eh, dama seetaan ay combat am nag. ay ay euh, Eumeu Junior ay combat yu xotteeku lu mos a bëri. te rek wax dëgg yàlla làmba comme ni ko xay doxee làmba waxul dëgg trop rek mais heure bi waroon na fekk muy xëccoo gaa yu bëri. dëgg la mais nag noonu la làmb demee toujours am na loo xamante ne dafay nekk sa ubbeeku gaay. macha allah donc Eumeu Sène gis nañ jëm ay qualité bu doon cuune wala du ma nangu mbëre moom. gis nañ ci ay qualité ci xeex. gis ko ci bëre gis ko aussi ne mbër boo xamante ne dafa sonn ci làmb waaw xam nga demoon na ba gett naan damay dem tulier sama tulier hmm, làmb bu ko bëree baax na bu bërul baax na par hmm. yàlla ñoo dil ko combat hmm. boo xamante ne filan filan pour sëkk la de boo xamante ne su boobaa yéen ñaar nga xam ne Dakar <laughs> naa se na métti mooy Serigne Ndiaye dégg nag mënu wax ci moom lu bari. mais nag ay qualité am yaakaar naa ne. yéen a gën a xam yéen su fekk muy bëre. yaa ko xam mais en tout daal ah. yow la en daal wóolu nañ ko ci bëre wóolu ko ci xeex gis nañ aussi ne comportement pour doon mbër yëpp recouvrir na ko loolu moo gis nag moo gis ne kon dogal yàlla. macha allah dogal yàlla ko ma seen si ñoom yoonam. jërëjëf jërëjëf leen ma suñu papa. Sénégal bukki amateur yi le promoteur des jeunes espoirs revient le 27 novembre ci arène nationale bii yoon nag dafa nar a gën a tàng gën a neex ndax amateur yépp ko namoon moom Sam Mbaye Fall njiital Sam Production mu ne le 27 dama leen andil komba bu rëy combat bi dox ci diggante ñaari goxi làmb ndax ku wax Jacob Baldé wax Pikine wax Ama Baldé ku wax Ndigal wax waaye wax Balla Gaye 2 muy grand combat di combat bu amateur yépp di xaar la ca gën a tee neex nag mooy bile drapeau la ñu dippe Omaro Omaro bu Serigne Saliou Omaro bu Cheikh Béthio Thioune Omaro jàmbaari Serigne Serigne Saliou Ndigal Thioune nekk ambassadeur u KPI gannaaw bu yàggul la ko waa Raaya Music Awards daal di def communicateur du peuple sàmbay ne fête bi kon ci arène nationale le 27 combat spécial ba lay bu écurie jàmm ji kër Mbay Fall moo nar a jàkkaarloog confiance bi écurie Tivaouane Peulh mu ne combat spécial boobee nag mooy trophée ETDR di établissement Touba Darou Rahman sàmbay fa séene leen a delloo njukkal ci seen njàmbaar ak lu baax li nuy def ci làmb ca combat préliminaire ya premier combat diggante ak sura mbër bu njàmbur Casamance mbës bu Malika nekk écribaac Seras mook Siteu Lawbe bu ressortissant Fatick jam zo 2 bu Bosco Sow ak bébé lees bu école de lutte Balla Gaye kooba bu caaroy mbooloo ak bébé ama bu école de lutte Balla njool waalo bu écrit Grand Yoff mbooloo dana jàkkaarloog Tyson bu écrit Songaan Gueye metti bu Kër Masaar ak Antu Njaay bu Dalifor mbooloo bas 2 bu caaroy sur mer ak maaf gi bu Badajon ñu ne bile bés nag moo tax sàmbay daal di dugal ñiy jàppale lamb muy sponsor officiel ya ñu ànd ceeg Touba Darou xam ne li jëm ci wàllu bâtiment ci wàllu génie civil ak mbooleem lu jëm ci wàllu BTP bàyyil ak ñoom ànd ceeg waa nuuru la jus bi baax te wóor ñi nga xam ne façon jus naturel boo bëgg am nañ ca buy seral xol rax ca doole ñu indi leen bu bees tàq bi sénégale yi doon laaj muy jus gingembre ba ñu ànd ceeg alburax automobile ñi nga xam ne li jëm ci wàllu vente ak location automobile bàyyil ak ñoom dañ la koy defal ci njëg yu xéewale te mucc ay ànd ceeg laay bu deef commerçant bu mag bi nekk ci Petersen en face Orca di lépp lu jëm ci wàllu habillement prêt à porter yu amul fenn ànd ceeg waa Uber muy boisson boisson énergétique bi nga xam ne boo nekkee compétiteur nga xam ne boo nekkee sportif moo war a nekk sa xarit ndax moo lay encouragé ci ay entraînement tey dalal sa yaram ànd ci nag ak waa Penipro muy entreprise bi yëngu ci wàllu gel lave-mains lave-vitre parfum de ay eau de javel ay savon liquide ak ay savon poudre maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal ak xeeñal xet gu neex ñoom waa Penipro ñoo ci teg loxo ànd ci nag ak waa Go Parfum nga xam ne façon parfum boo bëgg ci àdduna jokkoo ñoom ñu jox la li nga bëgg kon mbokki amateur yi bés baa ngoog le 27 novembre ci arène nationale combat yi ñu dippe Omaro bu Serigne Saliou sàmbay ne entrée dama ko yombal ba dee bu dee supporter 2000 francs la amateur 3000 francs bu dee loos 5000 francs kon mbokki amateur yi bés a ngoo ci biir bés yi combat bi kenn warul xaar ku la ko nettali muy diggante Zago Baldé ak ndigal bu école de lutte Balla kon ay ca ñu dem ci arène nationale la ka